nguur gi dañuy jàppale si wàll santé bi chaque année mu jébbal ñu ay fonds de dotation de santé da si am wàll te lu mu ñuy jàppale si santé bi le plus souvent ay médicament lañ koy lañ koy jënd pour jàppale poste de santé yi tey loolu la ñu réuniroon loolu moo ñu dajale woon mu nekk euh, fukk poste de santé yu nga xam ne am nañ ko pour jàppale leen en médicament bolé nañ ci sax école INEFJA bi nga xamni commune Thiès Nord la bok mais aussi maternelle maternité bu Elisabeth bi nga xamni aussi ci commune Thiès Nord pour jappalé len en médicament lolu aussi de bu ko état bi joxé ñun commune Thiès Nord aussi tooguñu rek ne yàcc na yasar parce que lolu ay fonds la yu mais sur fonds propres aussi dañuy def lu am solo si wàllu santé bi euh, tay def nañ ci lu wessu fanweeri millions en terme d'investissement. investissement nañu poste de santé Pognène eggale nañu poste de santé Cœur Issa ñu ngi wara a logement wu kaw bi mais également jàppale nañu poste de santé yi ci équipement lu melni lal lu melni ay sérieux pour quand même poste de santé y répondre aux normes euh, ren aussi bëgg nañu jàppale lu mod junni nit ñu bokku ci

en réalité fonctionné muy mel ni marina extension la ZAC ak la zone militaire mais bu ñuy lim duñ leen ci boole parce que ay quartier la yu nga xam ni rythme d'habitation bi dem soriwul donc woo nañu de fukk quartier yeeg juróom-ñeent pour xamal leen mébétu mairie commune Thiès Nord ren pour jàppale junni nit donc ñoom dinañu dinañ leen woo quartier bu nekk dinañ ko wax quota bi nga am donc un peu à l'image des bourses de sécurité familiale ñu ne leen quartier bu nous ne ñoom ñu def ko sur la base de ki nga xamni mérito ñu participer à ci couverture maladie inverse. donc si xolé yooyu ay ay yu nga xamni def poste de santé bien que waaw xam nga deug la xam nga ñun euh, d'habitude ñun commune yi le plus souvent bu ñu né poste de santé rek euh, dañuy xalat médecin chef district comme conseiller mo ñu jox xabaar yi ñoom moo ñu jox information bi mais comme lu ñu wax information du doy parce que ki nga xam ne aussi moom moo nekk ci suuf du du jànkantaloo problème nga déglu ko aussi dina am solo donc euh, loolu du yàq dara donc incha allah nee naa ren ñaar yoon la ñuy jot jot nañu benn 5 millions donc dinañu jotaat balaa at bi jeex beneen 5 millions te beneen 5 millions boobu kon jot euh, jot nañu information ni que ni ñun war nañoo gën a wàcc déglu leen dinañ leen impliqué si loolu ñu xool de médicament moo leen di gën a arrangé parce que ñun dañuy jàpp nekk ni tey médecin chef moo yilif euh, infirmier chef de poste yi bu ñu xalaatee jox la bu ñu joxee donc loolu dina mën a nekk euh, li nga xam ni kenn du si am lu mu si wax mais xalaat du day donc moom dinañu jox mais aussi dinañu wàcc ci suuf déglu leen ñoom itam taataan seen xalaat pour que lépp lu ñuy def ñu xam ne ñoom lañ ko defal te lu baax rek lañ ci jublu. li ci construction poste de bi. dañ cee am tuuti jafe-jafe ak entrepreneur bi parce que layam yi daa bëri lool xam nga ñun mairie du ñu ñooy tabax donc lu lépp lu ñuy def dañ koy jaarale si entrepreneur ay marché la ñu jox ko entrepreneur bi siñeel ko ay cahier de charge terme de référence yeeg yooyu lu leer donc ça ñetti weer waroon na poste logement bi waroon na pare mais gis nañ ci ay soox sooxital yu nga xam ni mënatul continuer loolu moo tax ma ni fii ak fukk fan. bu fekkee entrepreneur bi parewul losement boobu parce que euh, lu si des mooy peinture ak def karo yi su ko parewul donc mairie bi dina nekk si droit quand même pour que li nga xam ni moom la ko yoon may mu def ko parce que po logement la bi nga xam ni population Kawsara soxla nañ ko d'ailleurs ñu ngi may signaler que ni même infirmière chef de poste bi mi nga waaj a dem parce que amul fu mu dëkk donc urgence la pour que poste de sant bi logement bi pare te dinañ ci taxaw. Mansoumbo, je suis le superviseur des soins de santé primaire du district santé de Thiès. Je représente le médecin-chef de district, le docteur Mahmoud Moustapha Diop. Diko rafetlu di content au nom du médecin-chef de district qui ma envoyé di wax ni 5 millions de médicaments ce n'est pas rien nekk na lu am solo damay wax ni euh, au centre de des postes. perte de crédibilité bi ñu amoon maanaam bi ñu demee ba nga xam ni nit ñi dañ doon commencé soofantal poste bi li ko indi woon mooy poste yi da ngay dem ñu bind la ordonnance nga dem sa yoon dootoo am garab léegi nag fexe nañu ba initiative ko indi na ay garab donc ci biir loolu réforme yu ñu indi ci wàllu compétence transférée permettre na aussi état bi di jël ay euh, fonds di ko jox mairie ñu mu nekk wàllu garab ñu koy jox euh, poste santé yi mairie itam am nañ seen fonds propre yoo xam ne mën nañ ko jël def ko muy walu garab ñu jox ko poste santé kon ñu ñu ci gërëm vraiment le maire parce que ma ngi koy wax ni ko c'est la deuxième fois moy wo ci lu melni ñu koy gërëm dik ko xamni xam ni vraiment def na une orientation ci walu santé c'est séddale bi ni muy moy euh, poste bu ci nek amna na quatre francs en médicament amna yenen poste yo xamni amuñu 1, comme yenen poste yi ñom ku ne am nga deux cent donc lool yeb boko bolé mu nek 5 millions mais nek na lo xamni ne bu ñëwee dana mën tax poste yi noyyiwaat bu baaxa baax ñoom yemuñ si loolu sax ah garab moo ñu indi waaye xool nañu itam ñu ngi jëlal ay ASC ñu ngi jël ay matrone ñu ngi jël ay ay infirmiers yoo xam ñoo leen di seen bopp loolu dana soulager aussi les comités ba tax daa ñu tàll xaalis bi ñu am di ko def ci leneen pour améliorer la qualité de service